mbokk yi niñ koy defee rek ci bokk di fàttaliku ak bokk di nafaraat fan yi ñu ngi nekkoon di nafaraat dunduk saxaaba yi ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nan la demee woon ñu tànne woon nag ci ajuma ji weesu musxab musxab bu ibnu umayr tey nag am keneen koo xam ne moom lañ tàmbaat tànnaat ngir bëgg ci waxtaan kooka mooy saayid ibnu amir saayid ibnu amir nag koo saxaaba la woon bu rëy ci bokk ci saxaaba yu mag yi waaye donte aw turam ñu bari xamuñ ko waaye ku ku ku ku rëy ci saxaaba yi la bokkoon ci ci la bokkoon doonoon koo xam ne itam ku ragal yàlla la woon doonoon koo xam ne ku daan nëbb boppam la itam loolu nag moom moom moom moom Saïd ibn Ayyan moom mu ngi jé mi ngi jéggalu mi ngi mi ngi tuub ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk bañuy ubbi Xaybar boobu ba mu ju ba mu ji ba mu doonee ab jullit nag jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni mu fi jógee addunaam sépp ak dundam gépp ak li nga xam ne moom la am lépp da koo jox yonent bi ba jeex tàkk doonoon koo xam ne ak jaamukat yi yàlla la woon doonoon ku dudd tëdd àdduna doonoon koo xam ne itam lépp lu suufe ak lépp lu doyadi da ko da ko da ko doon sori doonoon ko xam ne itam ku sàmm woon la doonoon koo xam ne lépp loo xam ne mooy yëkkati looy indi yëkkati daraja ci suñu borom loola itteema woon doon koo xam ne jëpp jëpp jikko ak jëpp melokaan bu baax woo xam ne dees na ko dees fekkoon nañ ko ci moom moom mu nga xam ne mooy Saïd ibnu Amir boo ko dee xool nag boo yaakaarloog moom da ngay defe dey moom xanaa du ki ñuy wax ne mooy Saïd ibnu Amir saxaaba bu rëy bi ndax danga koy fekk mu doon koo xam ne dafay dafay fënd doon koo xam ne itam kawaram day day kawaram dafa doonoon kawar goo xam ne dafa doonu ci nekkutoon di sonn ci di ko di ko di ko maanaam nekkutoon di sonn lool ci di ko boros ak ak ak toppatoo ni mu ko xam ne ni lañ la ko war a toppatoo dëgg-dëgg waaye nag li ñuy won ak ki ak li ñuy won ak bàggam li ñuy won am melokaanam rëy moo di ne Omar dafa masa ji dafa am jamono joo xam ne Muawiya ibnu Abi Sufyaan moo nekkoon saam doon fa doon fa ki nga xam ne mooy gouverneur ba waaye nag Omar ci gisin wam gis ci moom ci yoo xam ne bëgg ko ci koo xam ne moom moo ko fal mu nekk gouverneuram mu mel mu mel melokaan woowu tax bu folli woon ko bi mu ko follee nag moom Amar muy xool kan la war a teg palaasu Muawiya ngir mu wootu ah, mu wuutu wuutu Muawiya ci nekk nekk gouverneur fi nga xam ne mooy Saam bi nga bi nga xamee ne nag mu ngi wër te xam nañ ne Omar doonoon na koo xam ne ku muy teg fenn ku nekk da ca daa bàyyi xel bu baax yàlla ndax xam ne kookee mu fi yu teg lépp loo xam ne def na ko du ne moom mooy ko def rek la yàlla di topp waaye moom moom nga xam ne moo ko fa moo ko fa moo ko def itam mu nekk kilifa ci barab boobe yàlla dana ko ca topp tax loolu nag taxoon mu buy buy tànn kenn ku ne da cay sonn lool te fi nga xam ne moom la bëgg a yóbbu kii nga xam ne moom la bëgg a tànn ngir mu nekk góor góornóoru foofa dafa doon dëkk boo xam ne dëkk bu mag la dëkk boo xam ne xéewal ya bari na lool dëkk boo xam ne itam commerce commerce ba dox na fa lool kon ka nga xam ne moo fay mën a nekk mooy nit koo xam ne moom day yooyu nga xam ne mooy poñeti àdduna yi nga xam ne mën naa yóbbu xelum doomu aadama na doon koo xam ne noom comme fu war mooy doon mu doon dafa a nekk koo xam ne poñetum àdduna du ko du ko yëngal ci dara loolu nag moo tax mu doon wër ba mu yàgg mu daal di ne ah am na ku ma gis de te yaakaar naa ne dana ko man mooy kan nag kooka nag mooy kan mooy Saïd ibn Amir nañ ma ko andil ba nga xamee ne woon a Saïd ba mu ñëw ci moom mu ne ko day dama daa bëgg a def gouverneur Hibs ci saam la nekk mu daal di mu ne mu ne ko ah man de bu ma sañoon doo ma ko def ndax loolu damay andil fitna rek ci sama àdduna te loolu bëgguma ko Omar ne ko déedéet nag mënut a ñàkk ndax yéen yéen ma jël ma nekk jox ma seeni i kóllëre def ma may seen xalifa kon nag. ci du wërta wërta jaadu mukk ngeen def def ma responsable yooyu responsabilité yooyu yëpp ba noppi bëgg maa bàyyi nag ak sama bopp loolu jaaduwul loola nag ba mu ko waxee saayit saayit xam ne li mu ko wax kon lu jaadu la lu war a dégg lu bat a dégg mu nangu nag nekk ki nga xam ne mooy góor nóoru xems bi nga xamee ne nekk na ko nag xems moomee dañ ko daa dañ ko daa dafa bokkoon ci dëkk yi nga xam ne képp koo xam ne fal nañ la fa nit ñi danañ danañ doon ñuy féetarlu ci sa kanam danañ doon ñoo xam ne dañuy wut ak yow ba waxee lii ñu waxlee boo jëmee fii ñu jëm fee waaye nag bi nga xamee ne yàlla dogal nañu indi fa sax ibn Amir moomu yàlla tàggatal na xol yi tàggatal na Saïd mbaax moomu nga xam ne jaamu yàlla bu wër la tàggatal na ko xol ya ba ñun ñëpp bëgg ko topp ko Omar nag di ko laaj benn bis ne ko dama gis ne Hibs day dëkk la boo xam ne jiite leen yombut melokaan ñi ndax ndax seen i melokaan nan nga def nag bañ bëgg la mu ne ko li li ma def bañ bëgg ma de mooy képp koo xam ne soxla nga ndimbal ma dimbali la képp koo xam ne itam da ngaa am ak jàq jaaxle ak jàq ci sa bopp noo man ci defal la itam ma def ko loolu nag moo tax ma ma ma am li ma am ci ñoom waaye nag xam nañ ne ak lu mën a xew itam bu la ñi bu ñu waxee ne di dëkk sàngam wala barab sàngam bëgg nañ lay itam du ñëpp rek lay doon du ca ñàkk ñoo xam ne am na loo xam ne moom lañ la dencal loolee nag tax mu doori mu am benn bés Omar ñëw ci fi nga xam ne moom la ko fal mu nekk gouverneur di ko laaj waaye nag laaju ko moom dafa laaj ña nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ba ni leen lu ngeen xam ci kii nga xam ne moom laa fi indi mu nekk gouverneur tey ba mu leen laajee ñu ne ko day am na loo xam ne ñu ngi koy jàbbat ci moom bi ñu waxee loolu nag Omar xaw naa jaaxle ndax jàppoon na ne kii de mooy ki nga xam ne moom la jàpp ne moo ko war a mën a yorool barab bi kon nag comme ñi ndëkk ci barab bi wax ñi ngi tàmbalee wax ay jàmbat ci moom jàmbat yooyu yàlla na nekk loo xam ne du doon luy da lu koy jam ci diine wala muy jam ko ci lennam mu laaj ne leen kon nag dama bëgg njàmbat yooyu nga xam ne moom ngeen di jàmbat ci moom ngeen waxar ma ko benn par benn ñu ne ko bi bi ñuy njëkk a jàmb am na ñett ñeenti yëf daal yoo xam ne ñu ngi koy jàmbat ci moom bu njëkk bi mooy moom day du du ñëw ci nit ñi lu dul ne maanaam yoor yor wees na maanaam day bàyyi ba mu naaj mu soog a ñëw du xëy si du teel a xëy si ñaareel bi itam mooy bu guddi jotee boo ku ko woo ku ne du lu wuyu ak koo mën a doon ñaareel ñetteel ba mooy am na ñaari bés ci weer wi ci weer yu yoo xam ne du ñëw ci ñun duñ ko gis maanaam bu njëkk bi mooy du ñëw lu dul daanaaj ba noppi ñaareel bi mooy duñu guddi kenn du ko woo mu wuyu la ñetteel bi mooy du ñëw ci am na ñaari bis yoo xam ne ci weer wi du ci ñëw mukk kenn du ko gis ñe beneen bi ci des nag xam nañ ne moom sax amu ci pexe waaye nag ñun bëgguñu itam suñ jiit mel noonu moo di ne léeg-léeg dafa mel ni koo xam ne dawee tàggoog ak sagoog te loolu itam xam nañ ne tàggoo sa tàggoog sagoog googee xam nañ ne du du du loo xam ne am na ca pexe waaye nag bëgguñ ko ci suñ jiit mu mel noonu bi nga def bi nga xamee ne def nañ loolu nag Omar daal di bi ko waaj waa ji waxee li nga xam ne mooy njàmbat yi ba pare daal di toog daal di toog bi mu daal di sëgg as ndiir di di daal di ñaan ci suñ borom ci loo ne li may wax wax ne day yàlla kii nga xam ne moom laa fi indi day dama koo xamoon mu doon koo ne ci ci jaa ci ci yëpp jaamu yàlla yu baax yi la kon li nga xam moom laa yaakaaroon ci moom te doon ko jot ci moom yow suñ borom bu bu ma ci bu ma ci am ñàkk yaakaar mukk na am rek na ma ni ma ko yaakaare daal di wax nag comme ça ne ko yow mi nga xam ne nag yow lañ jàmm ci yow ñeenti mbir yii dama bëgg nga tontu tontu nag ñeenti mbir yi lu ko waral mu ne leen li ñu wax ne day du ma génn du ma ñëw ci ñoom lu dul ni daa naaj ba ba naaj wi ne dàng ma soog a génn loola li ko waral mooy man dey bëgguma woon a wax sax sababu sababu li nga xam ne moo waral loolu waaye ma moo di ne sama kër mbindaan dafa amul man bu ma xëyee may ki nga xam ne maay tooyal ma fariñ bi bu ko def bu ko defee toog ba mu ba mu wow ma def ko mburu soog a jóg jàpp nag ngir julli yor yor soog a génn ci nit ñi loolu mooy tontu la bu njëkk bi muy du génn du génn ci ñun lu ne naaj wi daa da ne dàng noppi beneen ba ca teguwaat moo daal di maanaam bi Omar bi nga xamee ne Saïd ibn Amir wax na loolu Omar dafa daal di xolam dafa sedd mu daal di tudd yàlla wax ne maa ngi sant yàlla waaye teewul nag ba tey des na ci ndax benn rek la tontoogul kon na tontu yeneen ci des mu ne mu ne leen de beneen bi ci des sam bu ma sañoon du ma wax li ko waral waaye nag comme dañ ma laaj mënu maa ñàkk wax moo di ne damaa jàpp ne comme liñ wax ne moom day du génn ci maanaam du du ñëw. guddi kenn ko ba mu ba mu wuyu la mu ne leen li tax du ma wuyu guddi moo di ne damaa jàpp ne bëccëg bi moom ngeen ma am ci man waaye guddi gi moom sama borom moo ko moom ci man moo ko moom ci moom ci man kon loolu ba tey doonaat loo xam ne yaakaar naa luy bégloo Seydina Omar la beneen ba ca teguwaat mooy da ngeen a wax ne léeg-léeg dama mel ni am na loo xam ne sax xam nañ xam ngeen ne du samay awma ci pexe waaye nag damay dal léeg-léeg mooy léeg-léeg damay mel ni ku tàggook sama xel loolu nag te yéen bëggu leen seen seen njiit doon koo xam ne léeg-léeg day mel ni kuy tàggoog xolam. kon loolu nag lu ko waral mu ne leen day moo di moo di ne dafa am benn ansaari yu boo xam ne ab jullit la woon. ñëw Makka ñu rey ñu bañ ba mu ñëwee ñu mettital ko fa mettital wu rëy mettiloo mettitaloo moo di dañ koo takk ci ak ak gileem gu ndaw su sumi ko ba mu set ñu wax ko ne ko ndax yow da bëgg ndax boo sañoon tey ñu andi Seydina Muhammad sa place mu toog mu lii mooy li ngay jànkoonteeg nga mu jànkoo mu jànkoonteeg moom te yow nga nekk ci jàmm nekk koo xam ne itam daray lor du la jot mu ne leen wal bëgguma de maa ngi giñ ci yàlla ne bëgguma man ma nekk ci sama njaboot ak samay ak samay soxna am àdduna am yiwu àdduna ak alaxira ak yiwu àdduna sépp nekk ci samay loxo ak jàmmi àll ak jàmmi àdduna si tey ñu jot na ah, mu am luy dal yonent bi sallallahu alayhi wasallam donte donte ak dégle gu ko jam nee na man loolu bëgguma ko nee na boobee nag ba muy loolu ba muy xew boobu maa ngi nekk bokkoon ci yëfër yi ndax doo boobu jullee jë doonagu doonaguma jullit waaye métti du loolee ma gisoon ak nam mel ak nem tiise woon te mu doon loo xam ne ñu ngi ko doon def sama ñu ngi ko doon def doomu aadama te tey nekk naa ca la doomu aadama joojee nekkoon ma jàpp ne nag ñàkk a ko ñàkk woon a dimbalee ca ba mu ca nekkee waxtu woowee loola ëllëg suñu borom dana ma ci mbugal moo tax saa yu ma fàttali ko bis fàttali ko xew-xew boobee rek nee na sama sama xel day daal mel ne dem loolu moo ko andi nee na bi nga xamee ne nag bu beneen bi ci teguwaat mooy am na ñaari am na ñaar man am am na bis ci bis am na ñaari fan ci weer wi yoo xam ne du du ñëw ci ñun day toog këram loolee nag mu ne leen ba tey itam su ma sañoon duma leen wax sabab bi waaye nag comme dañ ma koo laaj mënu koo ñàkk wax moo di ne man dey samay yére dafa bëriwul aw ma itam mbindaat mu may fóotal su ma xëyee maay su ma su ma tolloo ci war a fóot maay fóotal sama bopp te bu ma ko fóotal bu di fóotal bopp aw ma meneen mbubb moo xam ne daa ko mën a sol ndax léegi rek laa loolu rek laa am bu ko defee nag bu may fóotal bu may fóot faw ma toog ba fóot ma àgg bu ko defee itam ma toog ba mu wow ma soog a sol ma ma soog caa mën a sol mel na ci mbubb yooyee ñëw mën a soog a mën a génn ci doom ci nit ñi loolu nag mooy li nga xam ne mooy li xew kon mu mel ni bi nga xamee ne nag ñeenti tontu yépp wala ñeenti mbir yi ñu doon tawal ci moom yépp gis nañ ni ko tontoo Seydina Omar dafa bég lool daal di wax ne yàlla day xamoon naa ne dooy sama yaakaar du tas mukk ci yaakaar ci kii nga xam ne moom laa amoon ci waa ji li nga amoon ci saayit mii day xamoon xam naa ne mukk du tas yaakaar yi du tas daa di jóg daa di lëng ki nga xam ne mooy saayit daa di fóon ab jëm ñuy laaj nag ndax ñii nga xam ne ñoom lañ fi jot a waxtaane ci ay saxaaba ak melokaan yi ñu mel ana kan moo leen yar bañ mel melokaan yi ñu mel xam nañ ne keneen yar bañ mel mel melokaan yooyu mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam nañ ne sayidina muhammad moome yàlla moo ko yaral boppam danañ laaj itam ba tey nan lañ mën a àgg fii ñu àgg ak lan lañ tegoon ci seen kanam ba mën a àgg fii ñu àgg ñu ne loola mooy alxuraan bi nga xam ne moom la suñ borom wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon alxuraan ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen mel noo mel loon yi ñu mel moo leen tax àgg fii ñu àgg kon ndax du jaadu ndax li li ñu woon ne alxuraan jooje itam doonoon na seen itte lool mooy kenn ci saxaaba yi day wax ne bu ma saa wàcce benn aaya ci ñoom bala ñoo def itte ci beneen aaya ba ñu wàcce dañuy xam aaya boobee lam leen di digal ñu jàng ko ba man koo jëfandikoo nañ ko war a jëfandikoo soo ko jàllaat ci beneen aaya loola doon loo xam ne kon moo taxoon ñu man lii ñu àgg moo ñu man ñu lañ man moo tax ñu àgg fa ñu àgg kon mu mel ni nag jàngat yaakaar naa ne lii ñu wax tey muy gis nañu kay fal nam nam ab taxawaayam gis nañu kañ fal tam nam nam taxawe loola lépp nag kon dañuy won ne di jàngataat yu doxinu saxaaba yi ak melokaan yooye doon na lu ñuy jox ay dund ay ay bind yoo xam ne danañu ko mën a jariñoo ci suñu àdduna moo xam fu ak ci ban barab lañ nekk ak ban taxawaay lañ nekk danañ ko mën a jariñoo bu baax a baax loola nag kon li ñu ñaan suñu borom mooy mu dimbali ba teg ba saxal nu ci jub googee nga xam ne moom la saxaaba yooyee nekkoon te yàlla dimbali itam jox nu xel moom xel moo xam ne day jëfandikoo lañ ko jox ba mën a àgg fii mu àgg ba ba fa saxaaba yu àgg ñun itam ñu mën fa àgg loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla ñu ko defal